من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله الحمد لله لما قد قضى وتري من بعد ما كنت ذا فقر وذا ضرري حمدا يكافي مزيدا منه في العسر ثم الصلاة على المختار من مضري mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di seetaan seen télé Touba Argentine TV ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd nuyoo bi islaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey ñu daje fii waroon a waxtaan ci li nga xam ne ni liggéey bu rëy la boo xam ne wër na àddina li liggéey Touba ca kanam waa Argentine liggéey ci liggéey bu yaatu ba tax na addi ji dem na waaye ñu dalal sunu ñaari responsable yi nga xam ne kenn ki xam-xamam màcc lool ci dëkk bi rafet lool muy Serigne Moustapha Lo ak Serigne Mapaté Diouf mi nga xam ne mbooleem addi ji waa Touba ca kanam doon récolté fii ci Argentine lépp jaar ci loxoom su ko defee dañu laan di euh, dalal rek daal di ñu daal di nuyoo kon Serigne Pathé dañ lay jox kàddu gi nga nuyu mbokk taal bi ziar bismillah auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki waa àdduna ñu leen di fii ci télévision bi ñuy wax Touba TV fii Argentine naam leen nuyu leen siyaare leen balaax dañ ñaan jàmm ak tawféex ñu ñëw fee di jotal ay cadre rek cadre yu sant ak cadre yu gërëm bokk taal bi nga xam ne ñu nekk ñu nekk ci Argentine ci liggéey bu kaw bi nga xamee mooy liggéey Touba Ca Kanam bi doon def muy maanaam ah, ak yee jaayante jooju liggéey Touba bi jëf ju rafet diñ ci def moo tax ñëw fii tey ngir jaajëfal leen ak jox ay compte yoo xamante yu am solo la ak am soññe yoo xamante bi ñu jàpp ko muy liggéey Touba Ca Kanam moom continuer day continuer rek waaye amul du taxaw bu jaar jaaree tam leen day ñëwaat. kon euh, sëñ bi ñu ngi leen jébbal kàddu gi ba gis yéen. ak bisimilah sëñ Moustapha Lo. aoudu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima ñu ngi nuyu mboolem mbokk yi nga xam te ne ñu ngi ñuy seetaan ak fu ñu fu ñu mën na ci euh, pàkki mo àdduna bi ñu ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di jege am nuyoo bu sell nag di ko jëmale ci euh, jëmm ju sell euh, saaxibul fadila Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di jëmm Sëriñ Tuubaa kaw suuf ñu di ko ñaanal yàlla suñu borom gën a guddal aw fanam gën a yokk ak wéram di ko ñaanal mboolem koo xam te ni ñu ngi la jiital te lislaam tax ñu jiital la ak ñi jiital te lislaam tax ñu jiital leen di jagleel ab nu bu sell mbooleem mbokk taalibe yi nekk fii ci Argentine nag di bokk ci njaboot Sëriñ Tuubaa jëf seen jëf ju am solo ji ñu jëf digg ab woote wuyu si ko te te wuyuin wa rafet lool ñu ngi leen di jagleel ab nuyoo bu ngeen gisee suñu jotaay bi kon dara warul ko rek lu dul toog Euh, jaajëfal leen ci seen jëf jooju euh, ñaanal leen ci yàlla ak it waxtaan tuuti ci euh, jëmm ji tax ñu jëf ko ak it tënk ak ci tënk rek daanaka loolu moo waral jotaay bi kon. ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp di baal xaq ñëpp di baal xaq ñëpp it. waaw jërëjëf Serigne Moustapha Lo kon mbokk yi noonu ñu ko waxee rek. xanaa ci dañuy profité rek di ziara Serigne Mountakha Mbacké Bassir nga xam ne moom lañ war a jiital ci nuyoo bi. ni ko sëriñ Moustapha waxee di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ba li mu yéenee liggéeyal maamam Cheikh Ahmad Bamba suñu borom defal ko la kawe njortam. naka noonu ñuy ziare Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa Baye Fall yëpp. di ko ñaanal gudd fan ak wér ak mbooleem xalifa généraux yi nekk senegal yëpp. waaw kon dañuy daal dugg rek ci waxtaan wi ma Mapaté Diop. gannaaw bi nga xamee ni euh, waatu Touba ca kanam jot nañu ndigal daayira Nourou Darayni bu Argentine jot ndigal jóge ci Serigne Habibou Mbacké mu doon liggéey bu rëy nga xam ne Touba ca kanam wër na àddina waa Argentine kañ lañ jot ndigal li ak liggéey bi nga xam ne ne mbokki taalibe liggéey nañ ko sëñ ma paate tey ba ji dem ñu bëgg na xam nan ngeen ci coordonné yéen jëwlin yi nekk ci dëkk bi ba dajale ci àddee ju takku ji ci moment bi nga xam ne difficile na lool ci taalibe yi te lépp rek ànd ak Pastef ak fulla ba tey àddee ji ngeen jëbbal ko ñu bëggoon rek xam liggéey bu nu ngeen ko defee sëñ ma paate bismillah voilà asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi euh, ñu ziar baax sëñ Abdou euh, foofu nga daaneel rek foofu laay tàmbalee muy liggéey bi nga xamante bi rek moom la doon def fii ci Argentine muy euh, Touba ca kanam bi nga xamante liggéey bi tàmbali nañ ko ñun fii ci Argentine ñu ngi tàmbali rek ba nga xam ne liggéey bi doon rek ba ndigal li jëbee rek dañ dañ jóg ba ndigal jógee rek la waa Argentine jot ndigal ni ko ñëpp jotee ci àdduna bi rek parce que Touba ca kanam fépp bi mu amee tam euh, ñëw na fekk fii ci Argentine parce que fii waa Argentine wax dëggante yàlla euh, bokki taalibe yi fi nekk ak bokki julli yi fi nekk muy murit bi muy tiijaan bi muy xaadir bi muy laayam bi bokk ab julli la ñuy wax bu nekk fii Argentine rek ñëpp rek kenn ku su nekk rek saw ñax dugg na ci jàpp nga ci liggéey bi ba ñu def ko ni nga xamante bi mooy lu kawe njortu maanaam li nga xam moom doon laaj ndax ñun ñi nga xam ne ñoo newoon ci ci terrain bi di euh, toppatoo addiya di ko di di di dajale addi yi vraiment ni ñu ko dajalee man daf maa yéem parce que yéen ngi fàttaliku keroog yi def lancement bi keroog bi may ñëw maa ngi woon ci ay cinq cent douze mille et quelques mm-hmm. te gis ngeen fi mu terminé te loolu lépp ci biir semaine bi la moo tax benn semaine bi ci biir semaine bi rek bi bokk taalib yi ni ñu jaajoo ak ni nga xam ne moom lañ def ba maanaam yëf yi exprimé si ba ma ay ma naan wax ma man un million la laa yemoon mm-hmm. gars yi ne ma di bu la wax un million di nga jël wax te macha allah un wax nga ma ko bokk taalib bi wax ko daanaka urne yooyu dem nañ ba romb nañ ko loo xamante bi jéggi naw dayow mm. kon loolu wax dëggante yàlla jëf la joo xamante bi mm. ñu ngi ci sant bépp jullit boo xam ne yaa nekk ci Argentine di ci sant mboolem ki nga ñi nga xam ne ñooy kuréel yi daayira yi ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ci kanam jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk mboolem ci province yi di ci sant itam sunu ki nga xam ne mooy suñu njiit muy kii mooy sëñ Pape Sode Sey mm. mi nga xam ne moo jiite Touba Ca Kanam mooy coordonnateur fii ci Argentine ak euh, jëwriñ Serigne Touba ji fi nekk muy Serigne Mortala Sall mm. nga xam ne ñoo jël liggéey bi ñoo ñu yebal ñu ñëw wax ci seen tur mm. kon ñoo ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaanal boolem taal boo xam ne ñu nekk ci Argentine ñu ngi koy ñaar ci jëf ci rafet jooju ak ni ñu ko defee ak euh, waxtu wi fi ñu toll ci Argentine ni gars yi góor góorgóorloo ak ni ñu jaajoo ba génnee li ñu génn nii wax dëggante yàlla yéem na kenn ku nekk ku nekk ci Argentine boolem ko doon def génn rek da nga naan déedéet mais li fi génn moom ak li ko gars yi génnee vraiment jéggi na dayoo te artisan ñëpp ci ànd mboolem jëw ñi nekk province rek ànd nañ ci loolu ñu ànd liggéey liggéey bi ba mu egsi fi mu egsi quoi incha allah waa sëñ Pathé ci diggante bi nga xam ne jot ngeen digal li ak maanaam li nga xam ne addee ji macha allah noonu nga ko waxee euh, takku na maanaam ndax takku na Serigne Touba sax kenn du ko jox dara ba yéem ko ndax waaye kenn du ko jox dara ba xeeb ko. Mm-hmm. waaye ci moment bi mu amee. Mm-hmm. nga xam ne bi ngeen jotee ndigal li rek. Mm-hmm. jëriñ taal Sall dafa jóg. sëñ Pape Solo jóg. ndax dañ koy fàttali ne Touba ca kanam yàgg naa taxaw fii ci Argentine. waaye lii ab jaayante la. donc ni ngeen coordonné euh, ba province yëpp yëg ko. bëggoon nañoo xam itam jëriñ yi nga xam ne jot ngeen a xam ne tàbbal nañ ci seen addiya ak mbokki taalibe yi cant gi nga xam ne nii waa Touba ca kanam amel nañ leen ko. liggéey boobu bëggoon nañoo xam sëñ Pathé. Euh, ni ngeen coordonné ak jëwriñ di nekk ci province bi ndax ku ne xam ne ne moment bi mu ñëwee xat na. Mm-hmm. te daanaka capital kenn mënu fee jóge dem ci province. Mm-hmm. province yi kenn mënu fee jóge ñëw ci capitale bi. Mm-hmm. waaye nu ngeen def ba addee ji macha allah lépp daal di ñëw Pastef boobu mbokk taalibe yi dawal daal. Mm-hmm. bëggoon nañoo xam ban stratégie ngeen dawal ba récolter addee ju toll noonu. waaw asalaamaaleykum macha allah macha allah sëñ Abdoulaye ci laaj bi am na solo euh, sëñ Abdoulaye mbir mi dafa am benn baatin bu ci am. te boo ko xoolee da nga xam ne sëñ Tuubaa rek mooy sëñ te sëñ Tuubaa rek a te donc bëgguñu jullit ñi ñu mooy lu baax te sëñ Tuubaa léppam dafa baax ndax moom daram léppam rek day avance jëm kanam bi ndigal li jógee ca Tuubaa rek saa ba mu jógee rek ba ba ba dem ci diaspora bi yëpp rek lekk si ñun bi si tam suñu jëwriñ yi nga xam ñoo ko jiite muy sëñ Pape Solo sëñ Mortal Sall ak yéen jëwriñ topp ginnaaw ñëpp daal di jaaju ñu bokk waxtaan ci ñu commencé daal di koy lancé mais bi ñu ko lancé jëm ci li ñu gën a garaaw mooy keroog ñu xalaat sëñ Pape Soxna daal di xalaat ne kat kon damaa bëgg am ñu dem ngeen dem ca rajo ba ngeen waxtaan ca te télé ba ñu waxtaan ca mooy waxtaan boobu dafa noonu keneen bi ñu ko defee dafa am lu ci am loo xamante bi maag sëñ Moustapha mi ñoo demoon keneen bi ñu ko defee dafa am lu ci am loo xam ne dafa jéggi dayoo parce que boo déggee ma lay wax ne la eh, li mu li mu lu toll ni maanaam eh, cinq cent douze mille cent soixante pesos diggante boobu noonu moo nekkoon ci li nga xamante ni keroog may taxaw foofu di wax. keroog bi ngeen di émission bi waaw jàllale 512 000 xaalis. Mm. keroog ma taxaw di ko wax. xam nga léegi 512 000 fi boo ko xoolee li nga xam ne moo ci dolli quoi ci diggante bi ñu defee émission bi. Mm. ak fi mot une semaine ah. bi ñu rek bi semaine masal boo doon teew lundi balaa ñuy àggaat weekend bi samedi dimanche rek li fi ñëwaat xaalis double na li fi nekkoon. parce que parce que waaw loolu suñu parti dama mm. ndax bi nga defee lancement boobu. Mhm. sama mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk euh, muy daayira bu mag boobu nga xam ne Touba Las Clotas. Mhm. ñoom mhm. lancement boobu. bi ko seen góor a jàllalee. wala Gambien. bi ñu ko jàllalee ba muy daw. ñoom ci la ñu daan gis vidéo bi wax ma ko. may dem liggéey bi de mu ngi dem. waaye ñoom. ci ñaari minute. ci seen groupe WhatsApp bi ci leen raconté ñoom itam yaakaar naa soixante. non non non liggéey boobu dama ci ñëw. parce que ñooñu. ñooñu dañoo dañoo dañoo def loo xam ne maanaam. dañoo def aw ñaras. Mm-hmm. parce que ñooñu fi ñu tolloon. instant bi ñu bi ñu ñëw ñoom ak bi ñu yëg mm-hmm. ko maa ngi leen nuyu de passage gars yi nekk yëpp. ñoom Cheikh ñoom Mouride ñoom ñëpp di ñu ba Mouride ñëpp euh, gars yi baax sëñ moral di yi baax noonu. Mm-hmm. bi nga xam ne yéen nañu affaire ñoom. ñoom nit ñi nga xam moom loolu dama ci ñëw. mais ñoom euh, nit ñi moo doy waar. parce que bi ñu ñëw ñoom. dafa fekk boobu xaalis bi ñu naan dina mat un million ak nangam parce que moom maa ngi maa ngi ci un million. Mm-hmm. mais gars yi nag di nga fu ëpp un million. mais ñun bi ñuy ñëw dañoo doublé mu mat un million. parce que ñun bi ñu ñëwee rek jour bi ñu woowee rek. Mm-hmm. dugal nañ pekk ay soixante soixante dix mille pesos. yaa yaa ko yóbbu Talla Sall mm-hmm. ñu ko ci mercado pag mu ñëw. ñu ci liggéey bi tam bi nga xamante bi lancé nañ ko. ku ñuy wax sëñ Xaadim Mbay nekk ca Formosa. daf cee def liggéey bu am solo ñu koy sant ku ñu passage. sëñ Xaadim bi affaire bi amee. dugal beeg xaay beeg am problème daa ubbi benn mercado pago boo xam ne moom la ubbi pour ñu mën ci dugal xaalis bi daanaka mën naa ne xaalis bu ci ëpp ci moom moo ko récolté ak man mi nekkoon fii ci capital bi suñu ma ko récolté gars yi li ñu yi doon dugalee ak ñu doon jaajoo loolu suñu rek moo ko mën a am wax dëgg yàlla parce que moom la nekk ay un million ay quelque boobu noonu bi ñuy paree bi waa Mendoza ñëw nag ba teg si noonu ciy teg noonu la affaire bi daal di àgg ba àgg fi mu àgg ba bi ñuy dégloo ñi nga xam un million quatre-vingt mille pesos. un million quatre-vingt mille tey xaalis doole ko am na. doole ko am na fi mu toll ni may xaalisanti am na yeneen xaalis yoo xam ne mi ngi ci gars yi tam mi ngi ci gars yi mais man man mii sama mercado pago beneen xaalis moom retiré guñ ko dañuy ko génne ko après boole ko li nga xam moom mooy dëgëraat pour yóbbal ko doon Touba. loo xam ne yóbbu ngeen addee ji ba noppi mhm. Mhm. xam ne mbokk taal bi dugal nañ ko mhm. yoo xam ne mu ngi seen mercado boobu ba léegi parce que bi bi ñuy def gars yi dañ doon wax nañ dem nañ yóbbu bi mais xaar bi xaar ne après ba nga xam ne gars yi fës nañ lañ jël li fi nekkoon dugal ko mais bi ñuy dugal am nañ un million quatre vingt mille pesos un million dogal na boobu noonu jamono bi ñu koy dugalee Euh, toll nañ ci toll nañ ci bi ko dugalee ci xaay bi bi ko dugalee mi ngi toll ci CFA 1 million 80 pesos bi ñu nekk 4 millions 765 mille pesos. 4 millions am moom lañ loo xam ne du fi ñëwaat ginnaaw gi loolu fi ñëwaat ginnaaw moom lañuy dajalewaat bu ñu ko dajalewaat nag après boole ko ñu kat yóbbu laa mu demaat tubaab incha allah kat ñu yàlla macha allah macha allah waaw ci loolu nga wax sax ci muy wàllu noonu ngeen jotee xaalis bi ku mel ni sëñ Xaadim Mbay ñoo koy nuyu de passage def na ci liggéey bu am solo ndax ku ne xam ne dëkk bi jamono bi mhm. xaalis di jaar ci sa tur di jaar ci sa compte donc mercado pago boobu nga xam ne yëg ubbi woon na ko mhm. euh, waaye yeneen daayira yu bari yu ci dëkk bi itam nu mel noonu lañ doon liggéeyee ci wàllu transfert bi mhm. ba doon naa ko tudde sax naan mercado pago bi de nañ ko wax mbégte pago nañ ko waaye mbégte pago ndax jamono bi li ci jaar ci diggante annoncé Touba ca kanam bi murid yi xàmmeetun barki borom Tuubaa kenn ku ci nekk di joxe sa mbégte pagoon ne nañ ko ci jaarale nit ñi di ko jaarale ba waa daayira la grouta boobu li ñu dajale ñoom itam man lañ ko yónnee ma daal di ko retiré yóbbul ko jëwriñ sëñ Mor Talla Sall comme noonu ko paate leerale boobu fekkoon na yéen a ngi xalaat 1 million waaye ñoom bi addee Mendoza ñëwee ak daayira Touba ngeen doublé 1 million bi mm-hmm. ba tey jii ngeen dugal 1 million 80 mille bu toll ci quatre quatre millions sept cent soixante cinq mille francs CFA. di liggéey bu am solo. ba tey itam addee des na yoo xam ne nii da ngeen koo bëgg a retiré yónnewaat ko. kon ah mbokki taalibe bi liggéey boobu rëy na. waaye nag sëñ Tuubaa moo toll noonu. sëñ Tuubaa moo toll noonu. ba tey sëñ Paate bëggoon nañ nga gën a développé waat rek euh, indi ak cant ak maanaam ak euh, ñaaxaat mbokki taalibe yi bu baax. ndax ni nga ko waxee rek am na addee joo xam ne des na te liggéey te Tuubaa ca kanam. Euh, liggéey bi doon na liggéey boo xam ne ni du jeex dafa tàmbali rek waaye du jeex te assainissement lañ waxoon defar mbedd yeeg yoon yi kon euh, ñi nga xam ne nii ba tey bëgg nañoo euh, tàbbal àddiya nga xam ne donte lancement bi rawoon na leen wala donte la jot a dem seen dërëm tàbbiwu ca kon dafa mel ni mën nga leen a waar rek ne mën nañoo dugal seen addiya ndax addiya moom du du du du am na du wàcc mukk kon bis loolu mën nga jàll bala bala si sant yàlla subhanahu wa taala baax di doolee gërëm bu baax di doolee sant mbokki taalibe yi doolee sant mbokki jullit yi mm-hmm. ndax kat woote ñu ñu wuy si la daal yombut mm-hmm. te gars yi dañu ëpp xam-xam euh, jiitu ñu ci lépp waaye nag yàlla su mu dogal ñu jël ab liggéey teg ñu ko jox ñu ko ndax wóor gu ñu wóolu mm-hmm. ñuy récolter xaalis bi nekk fii ci Argentine di dajale lépp ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla doole dimbali liggéey ba mën di continuer cant gi nag moom dañ koy cant mais ñu ngi koy cant bépp ku nekk ci Argentine mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi nekk ci province nekk fa nekk fa jëwriñ ca province ba ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaan yàlla subhanahu ak ña nga bokkal ñëpp digge yëpp ñëw na xam naa duñ mën a nekk di lim ndax ñëpp li nga xam ne moo fi ñëw ci ay wàllu xaalis ak li nga xam ne moo fi ñëw mais bépp province bu nekk ci Argentine ñi ngi di lim parce que ñooy seen xaay ñëw na fii ci man ak di jaar ci xaadim mbay ñu day la ko mooy xaay boobu ñu yóbbu suñu parti doguma la lim boobu sax dinañ ci ñëw ah. damay daal di dugal foofu sëñ Moustapha mhm. ndax ginnaaw ji euh, Pastef bi nga xam ne mbokk taalibe yi def nañ ko xam naa ne lim bi moom la ñuy mujjeel bu ko defee dañuy daal di dalal sañ Moustapha mi nga xam ne ni moom itam xam-xamam màcc na loolu macha allah sëñ Moustapha euh, taalibe yi jaayante bi nu jaayante ci liggéey Touba ca kanam bi mu doon lu rëy doon loo xam ne moment bi nu ko defee waaye ki nu ko defal muy Serigne Touba mi nga xam ni dafa jëloon léppam jox ko boromam jëloon léppam jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa waaye liggéey woon ànd ak tubaab bi ngir jaam ñi kon jaam ñooñu tey lay suñ borom jël seeni xol faye ko sëñ tubaa ba fa sëñ tubaa soxlaa mbokki taalibe yi tàggoog seen sago sëñ Moussa looy dolli mbokki taalibe yi ci liggéey bi waaw waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay yeesal nuyoo bi di ko yeesalaat ci mbooleem mbokk yi ñuy seetaan jamono yi di yeesal ab yor rek di ko jëmale ci jëwriñu Touba ci kanam fii ci Argentine mhm. suñu Pape Soda Sey di ko ñaanal yàlla mhm. wallahi lazim bi liggéey bi jàllee xolam bi da cee sedd guy ba nga xam te ni mhm. ni ab xolam seddee message ba ay jooy kese laa ci doon dégg nga xam ne kooku kooku xol bi suñ tubaab rek suñ wallaahi kon jëm mhm. mu jóge euh, sagal ndax ñu jiital la ci liggéey suñ tubaab ngeen taxaw ci taxawaay bu demee noonu mhm. sagal ngeen seen bopp waaye ngi sagal ngeen ko it mhm. ndax liggéey bi moom du laal suuf loolu ko suñu ko suñu mu taxaw li tax mu ne suñ mën taxaa bu mu laal suuf xam ne xam na ne du laal du laal suuf dafa bëgg dimbali nit ñi rek ngir ñu jàpp ci waaye liggéey bi moom du laal suuf te li tax li suuf hmm. dinaa la ko wax hmm. sëñ Tuubaa dafa wax ci euh, aw euh, ci am mbindam hmm. xasida goo xasida goo xam ne nii naan bayit bi mu ko tàmbalee moom moom la moom la tëjee xasida gi dane yasilu lii ilal jinaani maa uhib wali si waa naxwin taxa maa laa uhib nee na euh, sëñ Tuubaa dana leen li ma bëgg li tàmbalee ci àddina ji ñu nekk ba keroog ñuy dugg àjjana maanaam li li ma bëgg rek yàlla yàlla dana dana dana ma ko defal wala si waa naxwin taxaa maanaa waxee nee na lu ma bëggul it yàlla dana ko dàq ba mu jëm feneen waaye man suñu tubaab li ma bëggul yàlla du ko du ko dàq mu muy wut kon la sëñ Tuubaa wax wax wax moom hmm. yàlla su borom defal na ko defal na ko ba kon liggéey bi ku ci jàpp moom yëkkati ko hmm. sa yëkkati ko la ak sa sa sa sa nara dimbali ko hmm. la ci yàlla na la ci la yàlla la ci yàlla namm euh, lam jeexale xasiida googu dane xam nga li ko tàmbalee dañ yasir yasiru lii ilal jinaani maa uhib wali si waa naxwin taxaa maa la uhib waaye lam ko jeexal dane yasiru lii yasiru lii bi leen tixaa بالانتهاء ما أحب ولسوى نحو تفع ما لا أحب يصل لي بالانتهاء ما أحب ولسوى نحو تفع ما لا أحب maanaam ñaari bëyit la yoo xam ne nii hmm. ci waxin dafa niroo ci mbind mi dafa niroo boo boo ci béyiwul xel sax da ngay yaakaar ne benn bëy bi la hmm. waaye day day nuróog bëri di nekk ca wakaana xaqan exactement nga xam ne alal nabi wasirte Muhammad abqa salaam kërëm samadi abqa salaam kërëm samadi alal nabi wasirte mi ngi naan wax daa dafa ba dafa dal ci am bina waaye léegi dafay eh, day neexalu day neexal eh, wax mm-hmm. ci biiru ci biiru bindkat bëy doon ko jeexale mooy loolu yasilu lii bila intiha in ma uhib wala si waa naxwin tafa ma la uhib eh, li fekk li ma bëgg. yàlla da koy def li ma bëgg lépp yàlla dama koy defal. ci lu dul am am benn yemukaay. que nga xam ne du li nga bëgg tey fii la yem dama li ma li ma man fii laa ko yemal déedéet parce que nee na amul yemukaay li ma bëgg yàlla dama ko defal. Mhm. amul amul amul ma bëgg te yàlla dama ko dàqal amul yemukaay lu ma bëgg yàlla dama koy dàqal faaw ba faaw. kon nag mbirum sëñ sëriñ bi <laughs> euh, képp koo xam ne ni gis nga dara sëriñ bi rek mhm. boo bëggee sa dara yëkkati ko waale dugal ci sa loxo bokk ci ña koy ci ña koy yëkkati te xam na moom yàlla yàlla yàllaa ko yëkkati ku jàpp mu dem ku jàpp mu dem li ma ci euh, waxal loolu it dama ci jaajëfal mboolem mbokk yi nga xam ne ni seenu ñàkk dugg na ci liggéey bii jàll ba noppi li jàll moom jàll na ma nag waaw li ñu tollal mi ngi ñu tollal li ñëw ngi ci ci ci mi ngi ñëw la dem moom mhm. dem na ba noppi ku ca fay ñàkk dugg xam nga ko mhm. yàlla ko suñu borom nangu làq ko fo yàq àggul te ku yàlla fay jëf joo xam ci ni yàllaa tax nga jëf ko rawatina nga jaarale ko ci buntu bu wàllu na suñ wutoon na suñ tubaab ëllëg ba ba bu dafa yàlla dagale sa sa sa bët sa xol sa xol sa xol dana danga danga danga danga ko xeeb te li nga xam ne nii wax dëgg yàlla sëriñ bi eh, dara jomb ko li nga doon wax léegi naan dara jomb ko mm-hmm. maanaam li lim bu nekk dañ ko dañ ko dégg fu nekk waaye sëriñ bi la la dara jombul dara jomb ko macha allah ndax euh, li gën a jafe li gën a ëpp ëpp valeur hmm. moom la ko yàlla may xam nga sëriñ bi alal fu mu jógee rek hmm. xolub doomu aadama ba ko yëkkati hmm. moo ko moo moo moo ko moo attan moo ko attan te sëriñ bi euh, wax na ci ay mbindam lu bare bare bare euh, ne yàlla da ko nooyalal xol yi da ko tàggatal xol yi ba xol yi ba xol yi di jëf di ko jëf sëriñ Tuubaa rek day yomb day day day day day day yomb day yomb li ma koy firndeel ci mbindam la du ma la wax dara loo xam ci ni damay indi mbindu jàmbur wala kii maanaam sëñ bi bind bari na dara yoo xam ci nii mm-hmm. maanaam di jëli ay mbindi gaa yi di fi indi di fi indi nii maanaam <laughs> du xat ci ci ci jotaay yu ni mel mm-hmm. sëriñ bi dafa wax ne la la yental yi suñu borom koy wax ne ko la yental yi quluba qawmin amanu mm-hmm. yaa man alamtali yaa yaa man alamtali yaman lam layyantali quluba qawmin amano mm-hmm. yaa man layyantali man lam yumino yow yàlla nooyalal nga ma mm. xooli ñi nga xam te ni nangul nañ la gëm nañ ne yàlla mm-hmm. di la mm-hmm. ñi nga xam ni nangul nañ ne yàlla gëm nañ yàlla gëm nañ ëllëg gëm nañ bis péj ba gëm nañ eh, dogal ya gëm nañ la aju ci wàllu gëm lépp gëm nañ ko ñooñu seeni xol nangul nga nang nooy nooy tàggat tàggatal nga ko ba ba ba ba nooy. Mm-hmm. Euh, ñeent man si man man Sëñ Tuubaa kon képp koo xamante ni xëy na loolu lañ ci mën a déggee li lañ ci mën a dégg mooy képp koo xamante ni la. Mm-hmm. ba nanguloo ko. Mm-hmm. wala jubuwu la. man war ngaa xoolaat. Euh, sa fi nga toll ci sa sa sa sa yàlla. ndax ndax ñi gëm la wax. ñi gëm la wax ñi gëm la wax. te loolu fi nii li ma ci wax it mooy ñi gëmut it hmm. yàlla nooyal na seen i xol. Hmm. nooyal na nooyal na seen seen xol. Hmm. moo tax ni yaa man la man lam yuminu ñi gëmal ñi gëmal yow tàggatal nga ma xol xol xol xol xol yow su yow su yow su yow loolu waxi waxi waxi waxi sëriñ bi rek. Euh, li ma wax it sëriñ bi. maanaam nit ki. bu koy jëfal. waaw mu xam ki muy euh, ki muy jaarale jëfam. Mm-hmm. mooy kan loolu dafa am dafa am dafa am dafa am solo lool sëriñ bi dafa wax ci ay mbindam. Mm-hmm. dana lam yëpp xafil xalqi. Mm-hmm. siwaa man yatlubu barakat yi. parce que waqat ana waqat ataanil matlabu. parce que lam yëpp xafil xalqi siwaa man yatlubu barakat yi waqat ataanil matlabu nee na mbindéef yi de. amul amul ci kenn desul desul ci mbindeef yi ku dul koo xam ci nii day sàkku sama barke man si tubaab waxat ataani mat la ba te man de man suñ tubaab de li ma doon sàkku hmm. am naa ko man nit am ko xam nga kon loolu euh, garanti la hmm. moo xaat ci beneen bayit bi nga xam ne ne la may xal yi si wan nasihati li man ansar tuhum li wajhi maliki zaman man dara di setuma lu dul ma laabire ñi nga xam te nii jamonante nañ ak man waaye nag dama leen laabire ngir jëmm yàlla li wañ ximaaliki zaman waxaati ne lam yabqa fil xalqi aduwun yabtaxi hadma janaabi wa ataani mubtaxi nee na <laughs> yàlla su borom na ko ba mbindeef yi desetu ci ab noon boo xam ci nii day sàkku li mu tabax mu di ko ma mu di mu di mu di mu di mu di mu di mu di mu ko màbb. est-ce que. waata waata ni mu tax it li ma sàkku yàlla defal na ma ko. est-ce que. Euh, mu ñaan ñaan yoo xam ci nii xëy na danañ ci indi ay bayit yu gàtt rek yoo xam ci nii euh, ngir jëmmi doomu aadama yi nga xam ci ni yëkkati nañ seen alal. jëme ko ci liggéey bi nga xam te ni xëy na woote woon nañ ko hmm. ngir si Sëriñ Tuubaa ñu wuyu si ci wuyu bu rafet ñu mat a euh, sant lañ waaye nag euh, ngeen xam ne yi wax yàlla hmm. euh, jëf joo xam te ni mayoo ko hmm. da nga koo denc te insha allah njariñ li da ko gis àdduna da nga ko gis ëllëg àlaxira sëriñ bi dafa ñaan ñaan yu bare bare day sànni koo ñaan ci ci ay ci ay ngir ñi nga xam te ni ñoo koy liggéeyal wala ñi nga xam te ni dañ koo bëgg wala ñi nga xam ci nii dañuy yëkkati seen alal di ko def euh, ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir jëmam ngir jëmam jooju dafa wax ci benn xasida mu ne shakartu rabbi daayan li kulli man wajjaha lil ahsana fi kulli zaman ne nag jëmm jo jëpp bépp jëmm joo xam ne yàlla tawfiqale na la nga def lu baax jëmale ko jëmale ko ci man suñ man suñ man suñ Tuubaa mm-hmm. maa ngi lay ñaanal yàlla suñu borom fay la fay nga gën a rafet. parce que. suñ bi ci loolu ñaan googu rek ñaan suñ Tuubaa googu rek fi ne nii. ndax dana chakarta rabbi. man suñ Tuubaa de sant naa sama borom. moom ak cant moo tax it suñ jotaay bu ngeen gisee ñu ñu ñu toog di leen waxtaan ak yéen. bëgg sant. ci jëf xam ne jëfal ngeen suñ ngeen ngeen ko dañ leen a sant ci ci seen tur waaye dañ leen a sant ci su ci suñ Tuubaa mi mi mi mi mi ngeen ko ngeen ko jëfal. cant gi it cantu ñaax lay doon cantu uh, soññe soññe soññe rek lay doon mhm. ndax di ko suñu paatu waxee man keroog dañuy def émission boobu mhm. mu ne cinq cent cinq cent douze mille mhm. dajale fi ci xaalis dama ne ah suñ bi suñ suñ jotaay bi moom mbaa mbaa dara dana dana ci mën a judduwaat loolu laa wax ndax uh, fi réew mi toll laa xalaatoon uh, nit ñi toog ñeenti weer ba juróomi weer génn génn génn génn nañ seen kër yi te booba fekk na mbokk yi bari bari xëy na yëgoon ko ba dugal seen seen ñax barab waaye émission bi moom jàllee maanaam nit a ñoo xam ci ne xëy na jëfoon nañ ba noppi waaye soññe ba dafa tax fi ne nii ñu yëkkatikuwaat seen seen seen ñàq du du du dugalaat ci ña nga xam ci ne toogoon nañ it maanaam dara doon nelaw ci ñoom it soññe boobu yéena lu bari bari ci ñoom ba xam ne nii xëy na yëkkati nañ seen ñàq ba nga xam nii xëy bi jëf ji àggee Sénégal mm-hmm. ndam la ci mboolem sénégalais yi nekk Argentine mm-hmm. mbépp mboolem jullit boo xam ci nekk nga Argentine rek wax dëgg yàlla ndax ci ni xëy na dee sukku limaale ci njabootu suñu tubaab yi sax mu yëkkati aw ñaxam dugal ci ñooñu def ak kenn ndax nit ñi bari ñoo xam ci ni dañoo bëgg lu baax te xam nañ euh, maanaam mbirum suñu tubaab lu tubaab yi dugg rek day day day day jàll euh, jëf jooju kon yàlla ba wàcc ci la des ci euh, euh, wërsëg wërsëg yi yàlla na barke barke adde yi jooju yàlla na yaatal gën a gën a yaatal wërsëg yi mm-hmm. euh, barke wërsëg nga xam ne ni xëy na dugal ngeen ko ci liggéey liggéey suñu tubaab yi yàlla na ubbi mboole bunti yiw yi nga xam ci ni tëj tëj tëj na eh, jafe-jafe yi nga xam ci ni xëy na nit ku nekk yaa xam la ngay jànkonteel yàlla na ko yàlla suñu borom yombal ndax fa inna ma'al usri yusran ci barkeb eh, <laughs> alxuraan barkeb sëriñ Tuubaa barkeb tey soto asir bi eh, sëriñ bi it xëy na bala maa lay waxaat kàddu gi damay dama ciy profité profité rek ndax keroog ci woote ba ñu doon wax naan waxtaan sëriñ bi ñaan ñaan yam ñaan ci Euh, matlabul fawzayni ak it euh, fekkul lu man xadamani aw zara fa najjihi wax fir lahu aw zara mhm. ñaan yooyu kon yéen ñi nga xam te ni jëf ngeen mhm. jëfal Sëñ Tuubaa ci wooteem bii mhm. liggéey bii mu ñu doon ñu doon ñu doon mën a a xam ne fekkul lu man xadamani képp koo xam te ni liggéeyal nga ma man Sëñ Tuubaa aw zara wala nga wala nga ziyaara fana ji yow yàlla yàlla na nga ko musal mucc googu Sëñ Tuubaa doon ñaanal ñi ko liggéeyal ak ñi ko siyaare yàlla nañ yàlla na nga ko jéggal ak bàkkaar muy ko ci jëf maam waxul kenn ku nekk sa kémt lay nag jëf waaye ku ci jëf rek bu fekkee sa lay kàttan nga ci nga nga ci nga ak nu jëf ji mën a a toll rek yàlla na nga dugg ci ñàng yi muy mucc yàlla nañu ko yàlla suñu borom defal te lu mat a la sëñ bi lu mat a la ndax sëñ bi boo xoolee du Euh, lu waaye di mën a ñaan ci àdduna rek daa fekk nga mu am nga mu ànd ak mucc moo tax mu amal mu amal la njariñ kon mucc googu yàlla nañu ko suñu borom defal mhm. wax fir lahu aw saraay yàlla nañ ko jéggal ay bakkaram képp koo xam ne ni yëkkate nga sa dara dugal ko ci jëf ji ci tubaab kanam doon doon doon woote mhm. sëriñ bi mi ngi njëggal loolu ma doon ñaan yàlla nañu ko suñu borom bool defal ndax nit ki kenn seetul ci ñàkk mën a ñaan yàlla njëgal njëgal ku nekk rek aajo aajo aajo aajo aajo nga eh, njëgal njëgal suñu borom njëgal xam ne am ne ñii dundal ñii jiitu ñëpp kenn mënu ko ci ñàkk yàlla nañu ko suñu borom boole boole boole boole defal eh, ca la taf taf la beneen bay naan wa kullu man ahabbani mhm. aw maala ilayya farzuqhu hudan aw maala képp koo xam ne ni sopp nga ma yàlla yàlla mhm. yëkkati nga toq cofeel mhm. man Sëñ Tuubaa dugal ko ci xol jeneen jëmm rek jëmm jooju ma nga xam ne ab xolam moom daf daf maa sopp wala mu jéng wuti ma xam nga dafa am nit ñoo xam ne man si naa ne yàlla damaa xir ci ndibaar man la la waaye yoon maanaam xamuñ ci ndibaar waaye dañ ko dañ ko dañ ko wuti wuti rek tam bare tam bare lool lam nam ñaanal dane far zuqhu hudan ak njub yow yàlla yàlla naa nga leen ko defal ak njub nag mooy xam fi nga taxaw xam li nga xam xam li nga war xam li nga war a def xam li nga war a def sa diggante euh, ak sa borom xam li nga war a def ak sa diggante ak mboolem doomu aadama yi ak sa xam xam li nga war a def sa diggante ak sa bopp sax la moo moo moo làmbale xam xam xam la la lay jariñ nga nga nga nga nga nga nga nga nekk ca ah kon bu dem googu jub googu yàlla na ci suñu borom boole nangul ci ñëpp rek farzuqu eh, hudan aw maala yàlla na ko eh, wërsëgale njub ak alal mm. alal ji nga xam te ne xëy na mënu si koo ñàkk ba sëriñ bi saa yu soxlaa mm. Euh, yàlla man ñoo boole ca ñi nga xam te ni seeni ñàq dana dugg ca lañ koy liggéeyal mhm. yàlla na ko suñu borom gën a yaatal ci ñëpp yàlla na ko gën a bareel ci ñëpp mhm. te euh, euh, yombal xol yi ba nga xam te ni xol yi saa saa yu sëriñ bi wootee soxlaatee wala moo wootee rek mhm. danañ xam ne euh, lu ca lu ca dugg moo di deppal njëriñ euh, feneen euh, kon insha allah war nga leen mën a jox kàddu ba ba mu agsi waat insha allah ñu mottali li li nga xam ne xew na it xam naa dañuy continuer ak yow sax ndax mm-hmm. macha allah li nga fi développé lépp ci mbindum sëñ Tuubaa mm-hmm. soññaat mbokki taalibe yu baax mhm. nga xam ne xam-xam bu baree bari feeñ na fi mhm. waaye liggéey bi mhm. jëmoon ci barabu Touba Touba nga xam ne ni ko Serigne Touba fonke woon nga xam ne neneen sajaratun mm, fil janna maanaam garab la ci biir aljanna tey jaayante bi dem ci wàllu assainissement nga xam ne tey Touba léegi gis nañ ne taataayar fay bari wala mbedd yu bari na mu war a mel melu melu ni mbokki taalibe yi jaayante. muy mhm. waa Touba ca kanam. Mhm. ngir bëgg faa jële loolu. Mhm. nga xam ne fan yi gis nga gas ba ñuy gas ak ak wàllu fexe ba ndox du fa manqué. maanaam jaamu yàlla googu. sëñ sëñ sëñ Moustapha loo ci mën a laaj biir nit ñi. nga xam ne ak jaamu yàlla gu mag la. waaw jërëjëf sëñ Abdoulaye euh, laaj boobu nga laaj am am solo la ndax it euh, Touba euh, pàkk la bu barkeel. bërëb ba sëriñ bi lim ci wax. bu ko waxutoon nit nit ñi war a sawar ci euh, defar ko. ngir bëgg gi nga xam ni bëggoon na ko ba ñëpp xamoon ko ca xamoon xamoon xamoon ko ca moom. rawatina nag bi mu bindee téereem boobu tudd Matlabul Fawzayni ba wax nga xam ne maanaam daanaka image yu Touba. mën a ne ne téere boobu moo koy moo ko moo ko moo koy wane. dëgg euh, waa Touba ci kanam ñi it. lu bari li ñuy jëf. ci ñaan yooyu sëriñ bi ñaanoon ci biir dëkk ba. ci diir ci diir boobu lañ lañ lañ lañ lañ lañ koy lañ koy jukkee. Mm-hmm. di xool la sëriñ bi bëggoon ci ba ba doon ko ñaan yàlla. Mm-hmm. la ca néew lu ci manqué ci saaxeer. Mm-hmm. te xam ne maanaam bu ñu ko jëfutit. mënut euh, a mënut a mënut a ñàkk am. ci la ñuy nitoo di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko taxawal. Euh, sëriñ bi nag ñaan ñaan ci ñaan yu rëy a rëy. rawatina ba muy ñaan euh, wax fir li kulli li kulli man biha qad sakana wala lillazi laha li xayrin rakina yàlla yàlla na nga jéggal mbooleem koo xamante ni xëy na dëkk na sama sama sama dëkk boobu Touba te Touba ña fa dëkk ci maanaa ñoo ëpp ña fa dëkk ci zahir nii liñ lañ lañ mën a xam ndax bari na ñoo xam ne xëy na nekkuñ biir Touba ñu ngi Argentine ñu ngi ma wax yoon yi waaye seen xol yi Touba la dëkk ndax foo foo fu nekk rek ak Touba lañ ak Touba lañ koy def murid moom foo fu nekk rek ak ak lañ koy def. Mhm. Touba Argentine wala Touba New York wala Touba Touba. <laughs> Euh, Shanghai wala yooyu. Mhm. lépp it day wane seen i cofeel ci dëkkub Sëñ Touba ba Sëñ Sëñ Touba rek. Mhm. ñu ngi ci profité ci occasion bi di ñaanal. groupe bi nga xam ne mooy Touba Argentine TV di liggéey liggéey bu am solo tamit ci mbirum suñu Touba bi fu ñu mën toll yi wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi koy seede wax wax dëgg yàlla liggéey liggéey boobu mm-hmm. ci njiital sëñ sëñ sëñ sëñ góor ak mboolem ñu ma àndal liggéey bi ñu ngi leen ñaanal yàlla suñu borom gën leen a tawfeexale mm-hmm. euh, seen kër gi yàlla soqali ko euh, ba nga xam ne wax dëgg yàlla it euh, dana kaw njort lool mm-hmm. ndax it réew mu nekk am nañ seen seen Touba boo demee Brésil am nañu seen Touba Argentine Touba Brésil TV. dëkk yëpp a. wallaahi Argentine nag li mooy seen Touba Argentine Argentine TV yàlla na ko yàlla barkeel de. ne turu turu turu turu barkeel rek. allahumma li ma doon àggale léegi rek euh, ci li sëriñ bi ñaan. Mhm. Euh, sëriñ bi dafa ñaanaat ci bayit boo xam ci daf maa neex lool. ndeysaan. ndax dafa ñaan ne hablil lazi xadamani. Mhm. ixsaana. malakan aw mastuuran aw insaanan yow dafa daa dafa ñaan yàlla ne yow yàlla yàlla yow su yàlla yow yàlla su borom yàlla na nga may ki ma liggéeyal ki nga xam ne dafa dafa jëf te man sama jëmm ji man Sëñ Tuubaa ma tax ma tax ma tax mu jëf jëf jëf jëf jooju muy jëf ju baax yàlla na ko may euh, njekk yàlla na nga ko defal jëfum jëfum jooju doon jëf ju rafet yu jekk joo xam ji ni wax dëgg yàlla aw yu yaatoo yaatoo la ko la ko la ko la ko jural ëllëg lam daanale bay du mooy kiimaan nga ndax dana malakan moo xam am malaaka lay doon jëf jooju ka ko jëf malaaka lay doon mhm. aw mastoran wala mooy ku ñu su ku ñu ku ñu muur ko lu te loolu mooy boo gisee sax doomu adama la ko liggéey di ko liggéey loolu nga ci mën a dégg mën a mën a dégg mhm, mhm. ñi nga xam ne ni dañ may jëfal jëf ju baax yàlla na nga leen may ëllëgee seen jëf jooju mu doon tuyaaba ju bare bare bare ca ca ñoom moo xam malakan moo xam mu doon malaaka mhm. aw masturan wala jinne wa aw insaan wala wala doomu doomu adama ñi ñun ñun ñu mën a gis sëñ bi gis nga jàngoro sëñ dafa dafa amul eh, delluwaat ñaanat ne rabek fii dee dunya wa uxra darara mhm. wala tak fi kulla muntamin lii xarara yow yàlla suñu borom yàlla nag ma fegal mhm. àdduna ak alaxira lépp loo xam ci nii lor la lépp jëpp lor re yàlla nag ma ko fegal àdduna ak alaxira yàlla nañu yàlla su borom mboole dugal ci ñaan googu ak ndax sëriñ bi moom bu ñaanee rek ma nga ñaanaale li mbooleem euh, ñi nga xam ne mi ngi koy tudd di di di di di ko di ko tudd. ak ñaanam du yem ci du yem ci moom képp. Mm-hmm. Euh, mu jeexal woowu ne wala takk fi ku la mën tamit lii xarara képp koo xamante ni askan askan na ci man te as bu ne ko askan na ci man mooy koo xam te ni da koy da koy woote woo da koy wuyu woo. day da da da da askano bokk bokk ci deret suñu wàll moo tax waaye koo xam ne nii pas-pas moo la boole moo la boole ci moom moo la dugal ci askan wi. Mm-hmm. yàlla na nga ko fegal. Mm-hmm. ak wooru. ak wooru nag weesuwul jëf-jëf joo xam ne nii. Mm-hmm. la nga ci séntu ca jë ca jëf-jëf doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko ci gis. wala nekk ci loo xam ne nga yaakaar ne noonu noonu la te fekk fekk du noonu loolu loolu mooy ak mooy ak mooy ak wooru. waxaat na it ci aw bayit boo xam te nii mhm. ñaan la boo xam te nii andi dañ ko ngir eh, yéene mboolem mbokk yëpp rek ñaan nga ci sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi ñaan mhm. ndax dafa wax ne nafaatani fan faa biyal ixwaana mhm. wala tag fi na la xasada wala odwaana yow yàlla jariñ nga ma ba ma xam ko man sëriñ Tuubaa waaye maa ngi lay ñaan nga jariñ mbooleem jullit ñi ci man Sëriñ Tuubaa ndax bu ne fan faa bayil ixwaana al al ixwaan mooy mooy mooy mbokk jullit de la ndax sëriñ moom saa yi dee wax rek ay waxam la ca man a dégg mooy ci alxuraan lay niit lay niitoo te alxuraan moo ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ndax moom képp koo xamante ni yaa ngi wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah rek mbokk la la jàpp la la jàpp moo tax ma ne na faata ni jariñ jariñ la man yàlla man yàlla man Sëriñ Tuubaa mm-hmm. waaye nag maa ngi euh, njëriñ loolu maa la cee Mm-hmm. waaye it damay ñaanaat fan fa biyel ixwaana yàlla na nga jëriñ mboolem jullit ñi ci man man suñ man suñ tubaab nañ ca mën a kese la njëriñu kese la kon nag kenn ku nekk yaa war a xam na nga xam ne nii mënees na koo jëriñoo ci mm-hmm. sëriñ bi mm-hmm. lam daane li bay daane wala tak final xasada wala udwana yow yàlla li nga xam te ni mooy ak kiñaan ak ak ak noonoo mooy bañante yàlla na nga ñu ko fegal te boo xoolee iñaan mooy mooy indi noonu rek. Mhm. Euh, ndax dam ko jàngale woon nam jàngale woon iñaan ca ca mbindam dafa demoon xubbu zawali niamatin an muhtadi huwa al musamma indahum bil xasadi yàlla defal tawfiq doomu aadama may ko loo xam ci ni mayu la ko nga bëgg xéewal googu jóge ci moom jóge ci sa mbokkum jullit moom loolu mooy mooy mooy mooy iñaan te mhm. euh, loolu mooy indi noonu nit ki boo boo boo ko iñaanee rek wax dëgg yàlla day day waral day jur nga nga bañ ko moo tax mu ñaan ñaan gu am solo yi lépp loo xam ci nii ak ak ak ñaan la. Mm-hmm. ak bañante ak noono yàlla na nga ñu ko euh, fegal. Mm-hmm. waaw euh, waxaat yi wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ni yàlla natt na leen. Mm-hmm. ba nga xam ne ni jubóowu leen jubóowu leen moom sëriñ bi. Euh, waxtu am solo loo xam ne nii xëy na. képp koo xam ci ne xool nga sa bopp ba xam ne toquk yàlla nattu la nga bañ a jubu sëriñ bi nekk na ci yow it mhm. war nga ko ñaan yàlla mu dindi ko mhm. war nga caa def sa kamt lay kàttan ci góorgóorlu mhm. ngir xeex xeex ko daal ndax dafa ne raja kulli man xalaanii xaaba képp koo xam ci ni yàlla nattu na la da nga xam ne damaa bañ man suñu tubaab sa yaakaar day day tas waxuma la nga yaakaar jëm ci man muy sama liggéey bañ a sotti wala samay mbir bañ a sotti waaye sa mbir boobu sax la la la ci yaakaar yàlla suñu borom dana na ci natt ba la yaakaar mu tas yaakaar mu tas moom ku nekk war na naa euh, war na koo bañ ci ay mbiram na koo daw euh, lépp lu koy saw war nga koy te it li moom bi nekk ko dugg naan waaye da da da lu affirmative la lu mu affirmé yàlla def na ko defal ko ba noppi rajaa kullu man xalaani hmm. yaakaar yi képp ku ma bañ man si dubaar hmm. tas na loolu loolu sëriñ bi sëriñ bi ko wala wala xii xibban aw saxaaba du ma dajeeg mukk nag ab workat eh, ak ak ak ak ak cawkat mm-hmm. ak ak cawkat mm-hmm. bayit loolu mu ko ci ba mu ci jàllee dafa andiwaat beneen bayit boo xam nii day wax ci yaakaar yi ñi nga xam ci nii mm-hmm. kon dañ koo bëgg ndax ku wax ci yaakaar yi ña ko bañ waa wax ci yaakaar yi ñu ñu ko bëgg nu mu nu mu ne rajaa kulli man rajaa man yuhibbu nii muhaqqaqu la wax inda allazi li amali yu xaqiqu yaakaare ñi nga xam ne ni dañ yàlla da leen a taw fay xale ñu bëgg ma man sëñ Tuubaa euh, lu lu luy am la mhm. loo luñ luñ yaakaar rek danañ ci euh, danañ danañ ci teg danañ ci teg bët danañ ci teg danañ ci teg bët mu ne moo tax mu ne antal lesi li amal yi xaq ngi ci façon borom ma nga xam te ni man samay samay sama yaakaar mhm. maanaam tusu mosu ko tas mosu mosu ko tas lu ma ma sa yaakaar ci moom rek defal defal na ma ko mhm. moo tax mu ne kon yaakaar yi ki nga xam te ni xëy na daf ma euh, euh, yàlla da ko tawfeexale ma mu mu sopp ma mhm. kooku seen ay yaakaaram insha allah tabarakalla lu ñu yaakaar rek yàlla su borom dana leen dana leen ko defal kon dañuy tënk noonu rek ngir euh, ne insha allah tabarakalla xëy na émission bi mën naa bañ a gudd waaye xëy na suñu taata mi ñuy mm-hmm. am na lu bare bare ci liggéey bi lu mu war a tënk loo xam te ne war na ko leeral ci ci mbo ci mbokk yi insha allah tabarakalla waaye daal mm-hmm. ñaan yi sëriñ bi ñaan mm-hmm. ci ku yàlla tawféexale nga sopp ko wala yàlla tawféexale nga nga nga nga nga nga liggéeyal ko wala yàlla tawféexale sax xëy na dee su lim ndigal suñu tubaab limal la ci waaye suñu tubaab jubu na la daal mm-hmm. maanaam yow li ko yàlla may dérangé wu la xam nga loolu dafa dafa am solo mën ngaa bañ a bokk ci eh, njaboot suñu tubaab te na lool mm-hmm. eh, waaye nag eh, li ko yàlla may dérangé wu la yàlla dugal ñëpp rek ci ci ñaan ñaan ñaani sëriñ bi jërëjëf si Moustapha mm-hmm. maanaam boo gisee li tax ma laajoon la ci liggéey bi ndax day baax nit li mu jëf ba pare. Mhm. mu xam li tax mu jëf ko. Mhm. te liggéey Touba ca kanam. Mhm. li tax ma laaj la ci nga leeral ko mbokki taalibe yi. dafa doon loo xam ne Serigne Touba daf kaa ñaanal ba noppi. ndax damay xam ne Serigne bi léppam jag na. ku ko defal jag na. waaye ku ko deful it jag na. ndax tey eh, li nga fi tudd lépp. mu jëm ci wàllu Matlabul Fawzeyni. moom la waa Touba ci kanam di liggéey nii rek. te Serigne tubaal lépp lu mu dayaale woon ak boromam. Mhm. suñu borom defal na ko pare. kon nag dañuy dégg foofu rafet ci njortu. Mhm. ñun ñi nga xam ne suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm dem nañ ci. Mhm. ñu xam ne kon danoo jëfal Serigne Touba loo xam ne moo ko ñaanal boromam. ba boromam defal ko ko. kon am nañ tawféexi jëf ci. ndax euh, boo gisee tey li jamono doy waar lépp. bay di Serigne Touba waxoon ci euh, Matlabul Fawzeyni wala tos bi tànn na. fiihi jamaatan tuqimu alsalawat alxamsa daban yaqadim nga xam ne tey coronavirus bi ba mu ñëwee li ñuy tëj tëj jumaa yi tëj jàkka yi sëriñ sëñ Muntaxa waxoon na ndigal ne na nañ fa euh, euh, yor fukki nit ak ñaar yoo xam ne ah, ñuy liggéey jumaa ñoo xam ne julli ak jëm moom du du kon loolu day day dëppoo la sëñ Tuubaa ñaanu ndax def ne ah. daban loo xam ne dafay sax wa tus bi tan na mm-hmm. jamaatan tuqim jamaatan mbooloo la waxoon kon suñu Muntaxa waxoon fukki nit ak ñaar hmm. nga xam ne da sa asalawaatul xam sa du fa jóg mukk ndax ban yaxadima kon loolu day day day day firnde rek nii Serigne Touba képp ku koy liggéeyal hmm. waxoon na ab liggéey ah, ba noppi waaye foofu la ñu ñëwaat ci si wax dëgg yàlla torkal loolu nga loolu nga indi eh, gis-gis boobu nga ci indi wax dëgg am solo ci maanaam sëñ Matlabul Fawzayni googu. Hmm. mënoo ngi ci waxtaan fii ba suba. ndax dañuy xam dañuy tënk rek. Hmm. ndax Serigne Touba dafa doon koo xam ne. Hmm. comme noonu ko waxee rek. ya la ko yàlla jox. xulubu jumlatil lazina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslimin ndax xol. moo mooy moo moo mooy joxe. ndax alal da ngay dégg ñu ne alal ak doom dafa sax ci xol. waaye Serigne Touba nga gis ne bu laajee rek. jullit yëpp. dañuy jóg. comme ni nga ko waxee itam ndax moom. bi yata'allaqa allazina aslamu min jinni asriya duuna man lam yaslimu nga xam ne jinne yeeg malaayka ñëpp dañ koy liggéeyal ñi gënal ñi gëmul nag ndax loolu suñu borom moo ko defal waaye kon dañuy wëlbatikuwaat rek ci sëñ Pathé sëñ Pathé bu ko defee rek yow itam du ñàkk kàddu yoo xam ne da nga ko soññewaat ndax liggéey bi li ci ëpp kat yow yaa ko yoroon ndax taalibe dañuy joxe sëñ Moustapha tey day soññee di di di di gindiwaat mbokki taalibe yi di leen wax liggéeyal sëñ Tuubaa ni mu amee njëriñ ak liggéeyal ku yàlla gërëm mm-hmm. waaye tey yéen ñi nga xam ne ni macha allah mm-hmm. euh, mbokki taalibe yi dañoo am kóolute gu ci yéen mm-hmm. ak confiance nga xam ne jullit ñoo mel noonu bu ñuy jëf xooluñu kon koy jox ñoom dañoo xam ne rek addee sëñ Tuubaa la waaye yéen ñi nga xam ne responsabilité boobu moo daanu seen kaw tey lan ngeen di baaxwaat mbokki taalibe yi ci liggéey bi ak lan nga ñu dolliwaat ci liggéey waaw di delloo nii rek di delloo sant bu baax a baax di sant yàlla jëli ci yéen di salaatu salaam sant sëñ Moustapha Lo mi nga xamee ak sëñ euh, Abdoulaye Faye mii. Mm-hmm. ñu bokkal liggéey bi ak suñ jóori njëy sëñ góoram. Mm-hmm. ñu koy commencé ci moom di koy sant seen góoram mi nga xam ne moo nekk euh, Touba Tuy fii ci Argentine. Mm-hmm. vraiment wax diggante yàlla def liggéey bu bari boo xam ne bi mu fi ñëwee léegi. xañ na bokk na ñi nga xam ne ñoo ci ñu mujjee ñëw fi ci Argentine mais bi mu fi ñëwee yàggagul mais daanaka ñëw na indi fi loo xamante bi mm-hmm. daanaka ñun ñi fi jiitu woon yëpp xëy na amuñu woon xel moom waruñu amuñu woon kii boobu pour def ko mm. muy li mu indi tey ba di ko yaatal tey di ko jëmal muy Serigne Touba mm. lépp lu fi bàyyi bëgg tey mu jàppale mm. a ba li mu bëgg def rek ndax loolu dafay dimbale mur yi dafay dimbale taalibe yi parce ñu am lu Serigne Touba Cheikh Ibra ñun loolu lañ am te loolu lañ judd loolu lañ xam ak baax lañ xam ak lu baax ak di dox lu baax ku ñu fekk ne dañ ko jàpp gën ñu ko jàppandal comme nii ba mu gën a sori loolu ak sant yàlla ngi leen ci sant baax lañ ñaan yàlla suñu baax defal taw fi xéewal di dellu si ci sama rakk ji sëñ Abdou Lahad Faye bi nga xam ne ñoo bokk dëkk Njaareem mm-hmm. muy waa kër sëñ Mbaye Sarr moom ku leen tudd rek xam nga tudd nga waa kër sëñ Mbaye Sarr waaye bu loolu jaar wax bu baax wax mm-hmm. gën a yokk xam-xam bi ak soññe bi nga xam ne moo la soññe waa Argentine comme mm-hmm. ko doon defee nii mm-hmm. nga xam ne képp koo xam ne da ngay jëf mm-hmm. te li nga jëf di jëf ju baax mm-hmm. ñu war na kat da ngay jëf ju baax wax la fi ngay dugal sa alal ci fu baax lam lay jëriñ ëllëg loolu mooy comme ni nii ak ñaan xam ne moom la denc ak nu mu lay fayal yàlla nañu ko bëri ñun ñëpp bokk sant baax ñu nit dellu siwaat di santaat mbokki taalibe yi di santaat mbokki waa Argentine parce Argentine kat dañ fay gis doo xam ne ay bokk def ko. maam mi xam mooy ñi ñu jiitu. jiital ñu ñuy jox ñu ay cër jox ñu ay responsabilité yoo xamante bi ñu gàdd ko responsabilité nekk lu gis nag waaye nag yàlla suñu borom mi nga xam ne moom mooy alimul xuyub moom moo xam lépp ñun moo ñuy dimbale duñu jàpp ne rek dañuy tëjax tëjaxi ñu def loo xam ne rek xañ ne ñuy def xañ sax bu jël nit ñi ngi comprendre waaye ñu ngi dén góorgóorlu ba maanaam depuis suñu kéem kàttan ñu def ko ci ba liggéey bi mën a jaar fi mu war a jaar ginnaaw bu loolu jàllee eh, signal Eh, dinaa am tuuti loo xam ne maa ngi koy jël dinaa tëbbaat mm-hmm. ndax suñu laal jëf ji gars yi di jëf si Touba Ca dafa nekk jëf joo xamante bi mm-hmm. période bi nga xam ne ñu ngi ko doon def mm-hmm. dafa nekk période boo xam ne dafa difficile parce que yaakaar naa su ma jumee le 13 mars ba mu nay wax ak man ni ci laa bokk ak ñeen ñeen di leen bokk te mbir yi bi naasee Touba Ca Kanam bokkee taxaw ci taxawaay boo xamante bi defi ci defin boo xamante bi képp koo xam ne nekk nga ci arzana wala képp koo xam ne bokk na ñuy récolté wala xaalis comme man ma faroon rek mhm. da nga am bu jéem si yàlla da ngay daanu ndax ñu gars yi def mhm. te ma ma jox ci beneen mbir moo xam ne dafa doy waar mhm. bi bi ñuy lancé affaire bi ba fan ñuy wax ne maanaam ñu ngi ci ngi ci ñu ngi ba li mu doon wax bañ jëlee ci rajo man Moustapha mii bañ waxee affaire bi ni gars yi jaajuwaate ñu joxoon ak ñu joxewutoon ak ñu doon nekkoon seen i kër bi ñu déggee affaire bi maanaam jaaju bi dafa jéggi dayo jour boobu xaalis bi mu ñëwee fan yii dafa jéggi dafa dafa jaale maanaam mm-hmm. dara ci benn affaire dèjà nga am Argentine ñu jëlee mm-hmm. sant bu baax di ñaanal bokk yëpp mm-hmm. bi loolu yi am dañu am suñu benn bokk bu ñuy wax Serigne Ousmane sek ñu ngi koy ñaan yàlla subhanahu yàlla yàlla yërëm ko te mu jiitu ji nekkoon fii ci ñun bokk ñun liggéey daan lal fii benn quart fii fi ma nekkoon sa budu place fii la lal fii fi lal mm. am na sax ay bokkam yoo xamante Sénégal bi mm. waxtaan ak sama benn xarit bi ñu wax Moustapha Yadd mm. mi ngi nekk Guinée Bissau mi ngi ne xale bi Guinée Bissau la jógoon mu ne foofu la jógoon après ñëw fii ndeysaan moom tukki bi dafa metti ndax euh, bi mu jógee Sénégal Euh, dem Guinée Bissau delluwaatu Sénégal foofu la jógee ñëw fii ba ñëw fii sumbaam dogal sumbaam wàcc koom waaye keroog ne maa ngi woote woote bu ak Moussa Fallou gars yi xëy def loolu te suba ko xuma ginnaaw suba rek laa woote suñu bokkam taalib boobu gaañu kon nga xool ne Sénégalais yi def nañ juróom juróom weer yoo xam ne kenn liggéeyul ñu woote woote boobu gars yi génn un million quatre-vingt mille pesos mm-hmm. ak li si ak ak diggante bi mm-hmm. ma dellu woote waat seen ba ma woote waat daal ne kat su mbokk moomu ne la ñun la yaakaar. Mhm. te ñun dañoo ko yóbbu Sénégal. amul kenn ku yóbbu ku ñun. Mhm. bi woote mhm. boo xamante ni seen Moussa Ba. dafa jéggi dayoo. ñaari woote jigante bi ñu demee ñu wax ñu wax ak assurance bi nga xam ne moo ko war a yóbbu. ñu wax ne li nga xam ko a daal koy waxaat tey actuellement fi may wax yow fi ma toog nii. Sénégal yi. joxe nañ fi huit cent soixante quatre mille neuf cent quatre vingt personnes. ak tey di duggaat tey. di duggaat tey sama mercado pago bi ak di duggaat tey ci yenn mercado pago yi. te bu ma àggee kër gi fi toll dinaa war a def loolu pour jëm ko woote. xool xool bi. ak mu toll. Mm-hmm. ak jafe-jafe bi nga xam moom mm-hmm. yi liggéey mais xam nañ ne mm-hmm. waaye itam suñu mbokku mbir mi xam ne moo fi jógee. ñun dañ ñoo ko mën a yóbbaat Sénégal tamit benn aide boo xam ne ñu ngi koy am buy jógee feneen di ñëw ci ñun terewut bokk taalibe yi képp koo xam ne mas dafa wàcc rek ak lu mu débisé débisé rek mm. man mbir mi jàpp naa ni yéen mm. parce que bi ñu waxee nangami dollar li ñu wax ci dollar dama ko yóbbu mm. jàpp naa ni yéen yéen waaye man xamoon naa ne man mi nga xam ne yàgg naa ci dëkk bi di récolter xaalis Sénégal yi xam naa gars yi ay jàmbaar lañu quoi maanaam ñu ngi ci huit cent soixante quatre mille neuf cent quatre vingt pesos. ak li tuggaatee. moo war a jëm ci Ousmane Seck. moo nga Ousmane Seck woon ñaaj nañ ko. waaye nag ñuy soññal bokk taalibe yi. ci ay mbir yu bëree bëri ay fànn yu bëree bëri. liggéey Touba ca kanam bi continuité la. sempre day day sigir. taxaw day continuer di dem. kon dañuy bokkaat di soññal bokk taalibe yi. di bokk di soññal bokk judd yi. ñu gën a góorgóorlu ci maanaam li nga xam ne mooy carte yi nga xam ne mooy carte Touba Ca Kanam yi ñuy jaay. Hmm. parce que boo demee Touba Ca Kanam hmm. na ñoo xam hmm. euh, bëgg nañoo bokk ci daayira Touba Ca Kanam. bëgg a ci daayira Touba Ca bi nga xam ne moo nekk Argentine. maanaam nag kan lay jokkool. ak fan la war a jaar. ndax li demoon ni ay bolet la yoo xam ne nii. Euh, Touba Ca Kanam mooy jaayante yi. te. Touba ca kanam continuité la. Mhm. nga xam ne daayira la. Mhm. yaa ngi ne léegi si sëñ Pape Soda mooy jëwriñ ji. Mhm. nga xam ne su ma juumut depuis deux mille. depuis deux mille seize lañ ko fi créé woon. waaw ah, moom taxawal la nga xam ne depuis deux mille quinze. nga xam ni. Euh, maa ngi koy fàttaliku jamono boobu waa Muxaddamatul Xidma bi ñoo fa ñëwoon. ak euh, ak ñoom jëwriñ sëñ Modou Seck ñooñu. <laughs> nga xam ne ñu ngi doon def liggéey bu mag. je me rappelle bien. 2016 ah, 2016 waaw dañ créé waaw kon jot na mbokki taalibe yi nag mën cee bindu. Mhm. ndax li nga wax continuité la lii ab jaayante la woon rek. Mhm. waaye kon ku ne war na am carte. Mhm. ndax douze douze mille. francs CFA ca Sénégal mooy euh, at mi. weer mille francs. donc yow ku ko bëgg am. nekk fii Argentine. lan mooy ab nattam pour mu am carte bi muy weer wala at mi yëpp. waaw waaw sëñ bi euh, sëñ Abdoulaye. carte yi ni ngeen ko doxalee. carte yi ni ñu ko doxalee mooy bi nga xamante liggéey bi commencé na fii ci Argentine carte yi moom moo nekk nii blog yi moo nekk nii mm. blog yi moo nekk nii ginnaaw loolu nga wax noonu comme noonu nga waxee jaayante nga xam ne ñu ngi ko doon def ginnaaw bu jàllee Touba ca kanam continuité la mm. actuellement li nga xam ne moom la ñuy sàkku nag mm. ci bokk taalibe yi ak bokk waa Argentine dañoo bëgg blog yii mu gën a tasaaroo ci Argentine bokk taalibe yi fonk ko bu baax ndax fondement bu nekk war nañ daje li fi am ci àddina yóbbu ko Touba kon nag blog ñu ngi koy tasaare fépp ci Argentine. bépp murit boo xamante ni yaa ngi ci Argentine bépp jullit bu nekk a nekk am loo xamante ni mën na juróom wala juróom benn muur yu fa nekk. ñu ngi lay ñaan nga ñëw ci man wala ñëw ci jëwriñ Talla Sall. boo laajtee koo ci laaj wala jëwriñ ku mel ni sëñ Baara Ndiaye. Eh, koo ci laaj ci bokk yi. mu jox la nga tasaare bokk taalibe yi bu dee. la nga ca jaay. jël loolu boole ko lu ñu rek dugal ci Touba Ca Kanam diggéey gën ko ne dox maanaam daal bëgg a wax di jël wax mooy bu dee bëgg ñu xam ne nii nekkul luy taxaw. dafay continuer à chaque jour. ñu bëgg na fexe bokk taal bi ñëpp jàppati. Mhm. ndax su ma la déggee chaque fin de mois bu nekkoon. Mhm. Touba ca kanam Argentine. Mhm. danañ dajale at de yónnee ko ci Sénégal. naka jëkk ñuy def naka jëkk chaque année ñoom nekk dañuy def chaque vingt minutes bu fi am yónnee Sénégal lu ñu am yónnee Sénégal.

ñu ngi lay tàllal loxo nga ñëw di Touba ca kanam nga indi sa tur ñu jox sa tur nga nekk fa nga nekk fa jëriñ di Touba ca di liggéey liggéey jëm kanam Touba ca moom am liggéey boo xam ne dañoo bëgg amul fu muy am amul fu muy taxaw dañ ko bëgg a yaatal fépp bañ kër yi sax kër goom fukki ni ko jónét na ñuy jël bu weer woon nag am na xale yoo xam ne ñi tekki bi maa ngi leen jox ay ñoom móor yi xale yooyu noonu ay móor yi ak ak yeneen xale yi nekk fii ku ñuy wax euh, Abdou Diop ay ñoom Abdou Fata moom ngay dégg ak ñoom Galaay ak ñëpp wax dëgg ñu ngi ciy digg liggéey bu am solo boo xamante ne bii ak sëñ Baara ñu ngi liggéey bu solo waa La Plata yi ñu nekk Mendoza ñi nga xam ne nekk Formosa ñi nga xam ne mooy sëñ Abdoulaye fa mu nekk ak suñu ñoom euh, sëñ Nourou Cissé ak bi nga xam ne ñoo ci agent gépp ñu leen soññ di soññu sëñ Samba Fall mi nga xam moo nekk Cordoba fële dëkk ba Tukumam ak ñoom Akim Gueye ñi nekk Mada Plata bokk taal bi yëpp fu nekk ñu leen ci soññ ku lim juum waaye ñëpp xam nañ ne liggéey sëñ tubaab yi ñor na leen te liggéey Touba ça Kër ñor leen ñu ngi ci sonn blog yaa ngi nii ñëw di koy jënd chaque semaine ñu dagg ñu dugal ko ñu leen leen am yóbbu ko Touba ci liggéey Serigne Touba ba jërëjëf sëñ Pathé kon mu mel ni daa mel ni ñu ngi ci cëppaandalu émission bi waaye seen Moustapha kon yow dañ lay jox kàddu gi rek nga nga nga daal di soññee tàggoo mm. ndax euh, sëñ Pathé dama la ko lu am solo ci wàllu liggéey bi kon mbokk yi ngeen dégg ko noonu rek Touba ca kanam day continuer mm-hmm. carte yaa ngi nii mm-hmm. blog yaa ngi nii mm-hmm. fépp fu nit nekk rek na nga xam ne liggéey bi luy wéy la te war nga faa nekkal sëriñ bi kon sëñ Moustapha sa kàddu yu mujj lan ngay tàggatoo waaw jërëjëf ñu ngi rafet lu baax baax kàddu yi nga xam ne sëñ Paate yëkkati na ko eh, ci soññi mboolem mbokki taalibe yi xam ne liggéey bi lii ak wàll la ci woon rek waaye nag eh, eh, li ci ëpp solo mooy la sax lii sax kenn ku nekk rek xam nga boo xëyoon war a dugal sa kër xaalis boo xam ne nii day jëm si biir kër la ngay dugal mu doon douze mille francs xam nga ko la ngay dugal mu doon cinquante mille francs xam nga xam nga ko lay doon deux cent euh, euh, lay doon mille francs ci ci fii ci Argentine bu dee par weer la xam xam nga ko xam naa ne sax bu ñu mujjee wax yaakaar naa ci 200 pesos lañ ko tëggoon waaye fi ne nii ku ne xam ne 200 pesos fi ji soppi ko rek nañ ko soppandi ko sopp sopp soppandi ko euh, te ñuy jëf ci dëkk bi mhm. man gis naa ne lii am na solo carte yi ñuy dagg nii mhm. waaye man gëm naa ne maanaam nit ki bu fekkee sëriñ bi bi tax ngay jëf mhm. dëgg la ci yow. boo gisee carte yi da nga ko dagg boo gisul carte yi dox sa tàng. ba ca place parti nga jox ko nga ñu ñu ñu ñu ñu bind ko. te xam ne it boo ko joxee parti yi te suñu tubaab tax tax nga jox ko. yow yow wàcce wàcce ndax jëmm yi buñ leen wóoluwutoon ba xam ñoom li xam ñoom tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu teg la ci. boo demee ba ci daara sàll yi loo ko jox maanaam dama laa wax bul bul bul ma dagg bul ma daggal reçu reçu waaw ndax it amul amul ci fan reçu yi boo ko daggalee daanaka dama dama dama kon ñu bàyyi xel bu baax wax ne kenn ku nekk rek weer wu dee mille sa mille francs fexeel mu mu mu mu dugg. nam damuy toll ci peso bu dee deux cent peso wala bu dee deux cent cinquante peso wala trois cent peso. xam nga ko nga xam ne fexe ba mat ba mat ba mat mille mille francs rek. fa fa muy jaaree ba agsi bu fekkee am mbooloo ngeen ngeen mën koo dajale. ngeen dëgëral ko mu agsi ci suñu parti mi wala mu agsi suñu Pape Soda wala mu agsi suñu Talla Mor Talla Sall wala jëwriñ ji leen gën a gën a jege ci ci ci daayira ngeen xam ne lii li mooy lu jëm ci Touba ci kanam ñuy ñuy ñuy ñuy séddale xaalis yi nag ndax bu fekkee daayira yi dañ ciy dajale yeneen xaalis yoo xam te nii mhm. maanaam leneen ko tax a jóg mhm. bu ñuy def ngir Touba kanam ñu leeral ne lii mooy mhm. xaalisu Touba ci kanam lii mooy xaalisu adde yi suñu li ñu jëmale ci suñu mbokkum taalib mii fi wàcc wàcc wàññee ko Ousmane Seck ñu ngi jaajëfal mboolem mbokki taalib yi wax dëgg yàlla suñu baatu mi bëgg dëgg daa ko muy wax cadre eh, eh, eh, vocal boo xam te nii xolam seet na ci lool bokk taalibe yi waaye nit ñi mhm. la kenn mën a tuuti ndax fi ne nii mhm. nit baax la la la baax rawatina boo nekkee ci ci ci bi ci ju baax euh, dafa jafe rawatina jëf joo xam ci dimbali doomu aadama moo ko moo du ma jeexal ma koy te waxuma yenn bay yi nga wax ci mbindam ne li kulli man lahu saada mhm. kaw ne ilaahi lii bi ah, xar aada. est-ce que ne ne Serigne Touba dana xam ne nii texe yàlla dimbali na la ba ba nga xam ne ko mm-hmm. xotti baax la man ko mm-hmm. xotti baax may ko xotti baax mooy lu lu lu lu kenn mënta natt ci lu logique. na fekk ko ca. suñ tubaab du kenn du ko natt ci lu logique. maanaam lu gën hors hors logique lañ lañ lañ lañ lañ yow fi nii maanaam bu lay natt fi nii. damay jàpp yow fi mu nii boo toogee ñaari fan nelawoo. boo toogee man fii lu ma wax doo ko dëgg la boo tee ku dee mu sëy bu tawee fii it eh, xëy ndékkiwul añul damay wax maanaam nopp ak lekk lay lay lay lay dégg. moom or or or logique la boo xam ne kenn mënu ko natt ci loolu ci lu logique. wala mm. moom moo ko wax. waaye nag ki ko mën a xam mooy ki nga xam ne yàlla dogal na mu bokk ci ñu texe maanaam koo xam ne yàlla nar naa natt bokk ci ñi texe ëllëg. Mm-hmm. maanaam yàlla da xam loolu ne sëñ Tuubaa eh, ku xotti baax la. mooy baydoo ba badaa li kulli man lahu saada dama ba ko badaa badaa li kulli man lahu saada hmm. kawnu ilaahi di bi xarxil aada bi xarxil aada yàlla da may mu doon ko xotti baax que waaw waaye nag euh, li ñu doon wax léegi nag hmm. ne maanaam sëriñ bi moom bu ñu ko jëfalee hmm. li mu bëgg yàlla defal na ko ba noppi leen lu nekk ak jamono jëm jëm tollal moo war a moo war a sotti euh, ndax dafa wax ne waajal xen yi ilal jinaanil xayru maanaam lépp loo xam ci ne lu baax la moom ba keroog ñu dugg àjjana yàlla dàq na ko mu moom matal na ko mu mu mu mu si ko wala si waa ndax wala maa la dayoo lépp loo xam ci ne loolu la nga xam ne am lu amul njëriñ la moom yàlla dàqal na ko man dàqal na ma ko man suñ man man man suñ tubaab bay wax waxam yooyu dafa ma taxaw di seetlu waa joxe ni ilal jinaan la xayru wala si waa ndax wala maa la dayoo lépp loo xam ci ne lu amul njëriñ la man yàlla dàqal na ma ko man suñ tubaab lépp loo xam ci ne bi aw yiw ci nekk yàlla dàqal na ma ko mu wuti mu mu mu mu wuti ba euh, te ci lay waxee waxam ju am solo ji naan waa jihani bil xayri kullu shahri wa kullu yawmin maa kulli dahri mhm. nee na euh, weer wu nekk rek mhm. yi euh, làqal na ma aw yiwoo xam ji nii mhm. maanaam weer wa day dàq yiwoo mu wut si ma man si man si man man si tubaab yiwu weer wa maanaam weeru muharram yi ñu nekk nga xam ne mooy weer wu njëkk ci at mi atum jullit ñi ngi ci ndokkeel mbooleem jullit ñëpp Euh, yiwu weer wi hmm. yàlla dàq na ko mu wuti sëñ bi mu wuti mu wuti sëñ bi mu wuti sëñ bi waaw maa kulli yamin euh, wa kulli yamin sax la ñu def wa kulli yamin maa kulli dahri hmm. bis yu nekk bis bu nekk rek la mu am ci yiw hmm. yàlla euh, dàqal na ko mu wuti mu mu mu wuti ma maa kulli dahri maanaam dahri moom mooy moo ëmb weer yi ëmb bés yi ëmb heure yi ëmb ëmb ëmb lépp rek. jamono mooy diiru jamono rek. jamono ji nekk rek. maanaam yiwu jamono rek yàlla dàq na ko mu mu mu mu mu si mu mu si ba. macha allah kon xëy na dañuy bañ a gudd rek ñu ngi sant mboolem mbokki taal yi nga xam te ni ñoo ñu doon euh, topp ci télé bi. Euh, di yëkkatiwaat kàddu yu gàtt rek di ko jëmale euh, kàddu yi cant di ko jëmale ci Mor Talla Sall yi nga xam ne mooy njiitul fédération bi yàlla ko suñu borom woyofal yan bi. di sant mboolem mbokki taal bi yàlla te xam ne daal képp koo xam te ni yaa ngi jëf jëf joo xam ne nii da ngay jëf mu jëm ci Sëñ Tuubaa rek sa jëf ji moom na nga xam ne nii mm-hmm. euh, jëf ji loo xam ne nii euh, dugal nga ko foo xam daal mm-hmm. te dugal nga ko fu neex yàlla ndax dugal nga ko foo xam ne nii ku jëfal yàlla ba yàlla nangal ko ab liggéeyam eh, moom moom ci ci ab toolu nga ko ji kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ak solo boobu kon sëñ ma Paate Diouf ñàggul am na loo xam ne ni yow war a tëjee la ndax ku ne xam ne ne sax waxtaan moo xaw a xaabaa waaye li ñu mayoon ci waxtu jeex na defee nga daal di résumé li ko am daal di tàggu waaw baax na kon euh, bokki taalibe yi ñu ngi dellee sant baax rek demee ay kàddu yu sant rek di sant euh, ñëpp di sant mbokk taalib yi kon ni nga ko waxoon léegi rek di sant nag suñu jëwriñ di nga xam ne mooy Serigne Pape Soro Seye mi nga moo jiite mooy coordonnateur Touba ca mm-hmm. di sant euh, Serigne Mortala Sall mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne fii ci Argentine mm-hmm. nga xam ne ñoo jël liggéey bi teg ko suñ loxo ñu bokk di koy liggéey ànd ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom na ko bokk ñëpp ñu mel ni ay ñoom Eh, Serigne Cheikh Faye ñu ngi ko bokkal ak ñoom eh, Serigne eh, Cheikh Ndiaye mm-hmm. ñu ci def liggéey bu am solo ñoom tamit sëñ Mansour ñoom liggéey bu am solo ak ñoom sëñ Baara Ndiaye ak bokk yi am ñoo ngi ci province yëpp ak sëñ Moussa Dione bi nga xam ne moo nekk fële ca mm-hmm. ñëpp ñu bokk liggéey bi di liggéey liggéey bi ñu bokk ci Touba ca kanam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ci yëpp ak ñi nga xam ne ñoo ngi ci quartier bi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi dina ñaanal jàmm ak tawfeex di sant mbokki waa Argentine sëñ euh, Abdoulaye mm-hmm. man de damay sant mbokki waa Argentine ndax sant gi ma leen mooy waa Argentine booloo gi ñu booloo mm-hmm. ak ànd gi ñu ànd mm-hmm. di ànd liggéey bi ñuy liggéey ci yàlla muy murid xaarit tijaan ñëpp ñu àndoon nekk benn di liggéey liggéey mag ñuy liggéey vraiment ñu ngi leen ñaan subhana taala yàlla yàlla gën leen dëgëral yàlla gën leen jàppandal parce que am ñu mut gii ñuy jàppalante di dimbalante suñu biir bopp sax gi ma di ko wax jàppal gi jàpp dimbali suñu biir bopp mbokk taal bi jàppalante suñu mbokk mu fi loolu ñëpp ñu àndandoo taxawandoo yi ba ba ba ba sas bi fi ne lépp ñu ñu ñu ñu ñaaj ko wax dëgg yàlla ñooñu te xam ne nag képp koo xam ne baax na nga xam ne lu baax rek moo mat a def bés dina ñëw lu baax rek mat a def jub rek mat moo a moo mat a moo mat a sàkku moo mat kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mu mel ni rek waxtaan woowu mooy waxtaan wi nga xam ne ni amala nañ ko fii ci télé bu mag bi di télé Serigne tubaab bi di Touba Argentine TV ñu ciy jaajëfal baax suñu invité yi nga xam ne ñoom la dalloon muy Serigne Moustapha Lo macha allah lim fi développé ci xam-xam. ci ci ci laay biire macha allah ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën a sàmm ko. gën a dëgëral ko rafetal ab xam-xamam te yokk ko. waaye di jaajëfal sëñ Mapaté Diouf mi nga xam ne. guddi ak bëccëg. xam ne ne tàyyiwut dafa mel ni ma paate temps bépp mooy euh, euh, euh, liggéeyal jullit ñi ci dëkk bi mm. du ma ne sax liggéey suñu tubaab mm. waaye liggéeyal jullit ñi mm. ndax ku ne xam ne laaj ni mu méttee waaye ñi lay jox am ci yow benn confiance bi wóolu la guddeeg bëccëg sañ ma paate kon liggéey boobu ñu ngi ñaan suñu borom kàttanal la taxawu la te aar la te sàmm la sàmm sa njaboot ci barke Serigne Touba waaye di jaajëfal mbooleem Sénégal yi nga xam ne nii nekk nañ ci dëkk bi ndax ku dégg euh, lii sëñ Paate wax mm-hmm. ci maanaam distance bu gàtt bi nga xam ne liggéey Touba ca kanam bi jaar na fi mm-hmm. mbokki taalibe yi dajale fii lu toll ak un million euh, quatre-vingt mille pesos mm-hmm. ah ba ñu ko dugalee Sénégal ah wax dëgg fa la nañu xam ni la mu doon ca CFA muy 4 millions 765 mille CFA. Ah, na na na na leen leer ni mu ngi mel ni kenn ku ci nekk yaa jëf-jëf jooja. ndax ndax jëfi mbooloo ak jamaa rahma. Mm-hmm. Euh, te euh, bu ñuy fay rek dañuy fay mbooloom yëpp. Mm-hmm. kon képp ku ci jëf sa dërëm. Mm-hmm. ñu ngi lay sant di la gërëm waaye nag. sëñ tubaa lañ ko jëfal ndax sëñ tubaa rek moo mat a jëfal ndax moom day moo liggéeyoon ba ñëw suñ borom ne ko lan laa lay fay mun a ijaal rujuu'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niirana kon kooku dafa jëloon tukki bi na ñibbisi gi na ko ci suñ borom fajale aajo yi mbokk jullit yëpp nag la waxoon ilaa xaw mi mboolem lu yàlla bind waaye waltak fii naa nga fegal leen sawaras àddina ak àllaaxira kon kooku lu ko waay jëfal maanaam yelloo na ko waaye di santaat itam mbokki julli di ci jëf ji nga xam ne jëf ngeen ko muy sunu mbokki taal bi fi faatu muy sëriñ Ousmane Seck liggéey bi ni ko paate waxee di même pas un mois ñu dajalewaat fi àddee ju toll nii waaye loolu itam ni ma koy waxee rek day dëgg ndax mooy dafa almawtu baabun dee buntu la wa kullu naasin daaxiluhu mm-hmm. kenn ku ci nekk dina ci dugg mm-hmm. kon Euh, loolu itam dafa doon loo xam ne mënta ñàkk. Mm-hmm. Euh, te it di ci gën a soññaat mbokki taalibe bi dañu xam ne koor boobu ba léegi jógee gu fi. Mm-hmm. Euh, te nag jëf ju baax du way. Mm-hmm. ndax ëllëg yoo may xam gënu jëm yàlla na yéex. kenn ku ci nekk da nga rëccu. mooy jëf ju baax ja nga doon jëf lan moo tax saxoo ca. waaye loo néew lu jëf lu mu néewoon itam. da da nga rëccu li tax defaloo ko mu bari. kon nag nanu nanu nanu gën a jàppawaat. gën a boolewaat ñu dëkk bi te xam ne wa wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yàlla suñu borom nee nañ jàpp ci buumu yàlla gi ñu ñëpp ñu doon benn ndax innamal muminina ixwatun wa aslihu bayna axwaykum te nañuy dimbalante moom rek la yàlla bëgg kon ñu ngi jaajëfal mbokki taalibe yëpp di ñaan ci barkeb Serigne Touba mboolem lu waay jëf ci tubaa ca kanam ak ci liggéey boo xam ne liggéey bi yàlla la yàlla na ko yàlla fulal defal la sant daara ni waaye mboolem lu waay jëf ci mbokkitaal bi fi tëdd itam yàlla na doon sa mucc ba faw ci barke borom tubaa di jaajëfal ñëpp jëpp loo xam ne dëng na ci kàddu yi nag ñoo koy jéggulu baax waaye lépp lu ci jub ñu sant ko suñu borom subhanahu wa taala di ñaanalaat suñu xalifa bi nga xam ne ne moo fi nekk muy Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall suñu borom yàggal ko fi ñaanal Serigne Mbaye Mané Sarr xalifa Serigne Mbaye Sarr suñu borom yàggal ko fi ak mboolem xalifa yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yépp di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu